auzu billahi min asaytaani rajimi bismillahi rahmani rahim laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim yaa xayra dayfil ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila xadadi euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di amaan mbégte dellusiwaat fii ci Prestige TV ci naafile des jours yi nga xam ne ñu ngi leen koy baaxe tey jii nag ñu nekk ci fukkeelu guddi ak benn ci weeru koor fukkeelu guddi gi nag ak benn ñeenti rakkaxa mooy naafile yi naafile yi ñeenti rakkaxa lay doon rakkaxa bu ci nekk da ngay jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng inna ansalnaahu juróom-ñaari yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaari yoon jàng xul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon naafile yi ñeenti rakkaxa yooyu lay doon doon ñaari sëlmal insha allahu rabbi ñu baamtu ko rek faatixatul kitaab benn yoon jàng inna ansalnaahu juróom-ñaar jàng xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaar xul huwallaahu ahad nga jàng ko juróom-ñaar sëlmal ci kàttanu yàlla rek dinañu dellusiwaat ci yeneen i jataay insha allahu rabbi njëriñal naafile yi ñu laabire ko mbokki jullit yépp rawatina mbokk taalib yi nga xam ne ngi bàyyi xel eh, émission bi nga xamante ne mooy naafile des jours yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu